dañu ñëw fii tey ci CICES e ànd ak directeur général pour xool seen taxawaay ci foire bi nga xam ne ñu ngi koy dëgmal mu war a tàmbalee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer yu ñu nekk euh, ma ñëw fi nag fekk fi préfet bu département fekk fi également kuréel yi nga xam ne ñooy saytu ci wàllu karange ñu mel ni sapeur pompier yi euh, ñu mel ni gendarme yi gis ne euh, directeur général CICES jël na ay matukaay pour que d'abord sénégalais yi fi ñëw yëpp ñu mën fi ñëw ci jàmm génn fi ci jàmm waaye it ñi nga xam ne ñoo fi def exposant muy doomu Sénégal mbaay jóge bitim réew ñoom aussi ñu mën ko def ci anam goo xam ne anam gu mucc ayib nekk na loo xam ne am nañ ci xel mu daal te jàpp nañu ne incha allah foire bi na dinañ euh, ko def ak jàmm dugg ci ak bisimilah rahmaani rahiim génn ci ak alhamdulilah rabil alamin di wax nag euh, directeur général CICES ñu gën a ñu ma leen na ñaax ñu gën a taxaw bañ a naagu ndax loo xam ne ay téeméeri junni doomu aadama lay dajale dañu war a bàyyi xel saay su ne euh, ñu bañ a benn détail ndax nañu aar jox nit ñi seen kaaraange jaay ci dans de bonnes conditions pour que daal mu nekk loo xam ne comme ni ñu koy def at bu nekk mu nekk euh, luy jur jàmm ci réew mi.